mbégte gu rëy moom la liggéeykat yu ne ci mine door bu sabo Sabodala Gold Operation am gànnaaw bu xaatim déggoo jaare seen diggante ak seeni njiit ci teewaayu jëwrin gi ñu dénk wàllum liggéey wàllum xëy mi ak relation ak institution yi dal nañ déggoo ci ay poñ yu bëri poñ yi nga xamante ne nii mën naa wax ni euh, du ma si dellu si waat wante bëggoon naa leeral rek ngir nit ñi daal di xam ni ñun daal fa yéene wu ñu communiqué ci mbir bi nga xamante ne moom mooy euh, xew Sabadola ndax suñ bëgg-bëgg mooy affaire yi daal daal di sedd jamono ji. ci seen i ñaxtu yu ñu tàmbali benn fan ci weeru août bokk na ci intégration avantage à nature yi prime de production yi ak calcul heure supplémentaire yu cadre yi doon amal ci seen i liggéey gànnaaw ay waxtaan yu ñu amal kenn ku nekk am li nga jot a bàyyi ngir. ñu mën a am déggoo. jafe woon na lool ñu daal di uh, boole heure supplémentaire yi nga xamante ni amal nañ ko ci diiru juróom-ñetti at loole nag moo waral ñu daal di ci boole ay avantage yu ci mel ni ay prime ak ñoom seen ak retro paiement bi nga xamante ne ñoo ngi koy amal 2017 ba tey ngir cadre yi ñi nga xamante ne nekkuñu cadre nag ñu daal di déggoo ci ñu daal di ciy boole ab valeur nominale ngir ñu daal di amal rétro paiement yi weeru juillet 2021 ba léegi. mu di xaatim déggoo bi nga xam ne ni waa Sabodala Gold Operation am nañ ci mbegte ngir jàmm daal di am si bile entreprise nag mën naa wax ni loole amul njëg tax na ba lii euh, mun nañu wax ni sentiment de satisfaction la li des ba des mooy dañuy daal di boole suñu yoxo rek ngir daal di xool li nga xamante ni moom mooy avenir. jëwrin gi ñu dénk wàllum liggéey nag di ñaax responsable yu mine d'or bu Sabodala ngir ñu tëral ab comité de dialogue social ci biir entreprise boobee ndax jàpp na ni loole dina mën a saafara bépp la jafe-jafe bu dox ci diggante liggéeykat yi ak patron yi.